ok sa combat ak Adama Diouf foo toll. combat boobu la ma ñëpp di xamee may kan. sa combat Adama Diouf waaw. ci la ñëpp di xamee wuli bokku di sax ak ñii du ma ko man dama man ay mbër laa bëreel man man man su ma def saa ci comédien la moom moom laa laa bëreel ak armée geen kay rek man man ñëpp ay comédien la ñu liiru jaan na ma comme bëreel champion bu mu bëreel xëy xamoo ko wax <laughs> <laughs> man danga laa wax wax dëgg xam nga xam nga tey nekk ci télé di wax palmarès di wax di fecc di wax di wax gars yi di mara ngay wax ñu ngi fi daan ak ñi nga bëreel man mën naa wax maa daan caat booy bambara maa ko jëkka daan du comme ñeen xanaa kon bërek farouge bërek farouge bërek fagala bërek tijaan ay mbir laa bëre uh-huh. mais kon daal sa combat ak Adama Diouf daal wulli instant kon ñi naan wulli nekkul ci dara dafa topp kii bi ñu ngi nax seen bopp di ñaana ñëpp nañ ma ñaanal ci yàlla rek maam ndam ma. mais mais mais Lirou Diane Tapha loo gisee la combat boobu. non ñaari magat la ñu combat la parce que vraiment nag Lirou Diane Tapha Gueye de moom combat bu ne la parce que combat mag la. ñaari mag la am na favori. amul favori combat magat moom ku jaar baax. <laughs> mais Lirou Diane mën naa daal a Gueye de. waaw xam nga Sénégal <laughs> xam nga man daal Adama Diouf xam. combat la mais Tapha Gueye fekk lii daal wax dëgg yàlla ku ku teg. wala la ñaari mag yu bëre ba am man bu njëkk li ma gisoon mooy boole mag ak xale. comme euh, grand contour petit mais ñaari grand kenn di boole. Hmm. te dee naa yéen xaalis. xam nga kan <laughs> combat daf taxaw. ñu gis ni ay Lac de Guiers. Hmm. amoon na combat sax buñ ko doon wax. ay affaire kii nekk fi mu tudd ay affaire euh, ñi kii naan bu mu jëlee ndax 35 millions lañ ko proposé woon. baax na lan. Lac de Guiers warta bañ 35 millions xam nga moom sama xarit la nag. su lu neex wax ko. mais barke Serigne Bamba bu bu dee ci lam rek la. Lac de Guiers diminué sax daaw bëre. li tax nga wax loolu. bëreem nga tey barke Serigne Bamba. mais moom benn defet la. lii du jaan sax daq lam ne waat dëgg aussi. mais Lac de Guiers benn defet tamit la am. mais benn defet mais xam nga te waxuñu dik di doo daanu dik di neexal di bëre di daan te Lac de Guiers fi fi mu tollu ci laam bu dee logique rek la ñu xool di dix millions rek ci jaaduwal. ndax ndax ngeen dix millions tamit wuli. Eh, ci bëre bi la. ci bëre ah. bi comme lan Lac de Guiers bëre fi ay champion. sama xarit nag boobu kenn jaxase ak moom. sama dëgg bu ne fi ay champion nga naan 10 millions. non du sa xarit bu ne ko sa xarit doon na ko 10 millions yow bu góol ak Lac de Guiers de. <laughs> sama man képp ku ñu may wax nag. ko ko ah. wax keneen mu attaque la. ah mais 10 millions nag moom lu ma neex wax ko. mais Lac de Guiers 10 millions. bu nga fayal 10 millions sax wax nga xam moom maag maam maam booy jaaw <laughs> ñoo bokk maam booy jaaw mais sérieusement 35 millions yi war koo rejeté daal. non Samba nag 35 millions yi baax na. baax na mais it wax dëgg yàlla champion la parce que nag mosul daanoo mais mais Gaston itam vraiment a ni la man si nit même boo ko fi dix millions bu ko kenn xam. nan ne bu quoi que aussi taxaw na trente laa bu bëgg a jël bu waaw parce que nit la dajee mën na bëri sax dix millions. ti sutura. parce que am na sax dégg naa mu jóge si cent cinquante millions. ñëw na nangu quarante millions mais yooyu sax kenn xamu ko la dajee ak ak toll. Lac de Guiers ak fi lam toll war naa mën a bëre 35 millions. pour sauver lamb quoi pour sauver lamb. Euh, euh, Gris Bordeaux ak Balla mu nekkoon combat boo xam te ne ñoom ñaar bëre woon nañ tey. Père Gaston bëggaat combat boobu noonu ñu gis ne combat li ci am yooyu yëpp mais yow tey euh, combat bi nan nga ko gisee déroulement bi ak ni mu yàqoo noonu. ni mu yàqoo baax na xam nga Gaston man sama père mais man su ma doon moom sax du ma dugg ci Gris Bordeaux Balla ceeb ceeb neex na. ba daanuñu bëre ngir toog ba ba tey bëriwut bu kaw kenn bëgg ko woon bala gay ba ba ba ñaar ñëpp bëggoon nañu waxte dëgg mais nag ba ñaar aussi am na combat tafatin mais bala gay ak Bombardier taxaw na mais ngir aussi wax dëgg selam man wuli xam man mbir suma xabaar lañu surtout lu ma neex wax leen mais dama wax dëgg waru woon a taxaw na duma ma bëri Gaston dama ko jox xaalisam parce que man tey bu ma demee ba négocier ak yow. bu nu waxtaan ba ma jël sa xaalis ba lekk ko du ma dégg benn wax wala benn rumeur retourné waat dina dem lay doo sa xaalis loolu moom du ngor wax dëggu seer ne na wax dëgg du personnalité kenn mësu ko def ci làmb en tant que Gris en tant que VIP en tant que président de lutte en activité war woon def loolu parce que tey mooy référence la bu ko defee yeneen mbër dañ koy def fa waxaale ak promoteur jël sa avance toog ba fenn dama doon envie ci xoolal ba mu waxee day doon ba ko delloo du personnalité man wuli barke Mouhamad bu ma yor avance jamaïcain dem ba dama ko delloo ba boo ko télé yi ñaari fan ma ma dee ko avance am bu may dee. mais mais li mu def nii du du sax personnalité. non depuis un mooy yow yoroo xaalis mais nag ku xaalis da nga war na ma dégg bu yoroo xaalis delloo. man bu ma lefee sa avance dem ba mootuma laa dama lay woo woo si ne am sa xaalis a ngi nii mais taxaw rek dama lay doo avance xam nga Sénégal aussi dañuy fàtti caaxaan ku farak Gris Bordeaux d'accord ma parce que li mu def ku mu ko defoon du la neex ku mu ko defoon du la neex jël sa avance lekk ko ba ngay yaakaar bala ngay doo di yaakaar tafaat nag booy ñaar seen combat wax na ko depuis un mois deux mois kii nga avance jot na avance. te wax fen loolu mooy grandeur loolu mooy personnalité. donc Balla Gaye sa man ba Aziz Ndiaye ko wax. dundeero ay Aziz Ndiaye ko sam ba Aziz Ndiaye moo ma ne Balla ñaar dërëm jëlu ko te kenn dëgg ko mu wax loolu mooy gor loolu mooy grandeur mais mais moo jël dix ak dëkk bu naqare bi toog ne di dama rek delloo sa xaalis delloo wax xaalis jàmbur boobu ba léegi c'est pas bon na wax dëgg ku farak moom. bu la ko bu doon yawa du la neex sëñ Bamba parce que man damay defar na promoteur yëpp muy Jamaïcain muy Gaston muy Pape Fa mu ñëpp mbër bu ko def tegoo ko ci yoon mbër bu dee avance promoteur dangaa war a bëre boo bërewul nga ne ko am sa xaalis a gi nii mais bëree lu ma la to combat mag Bombardier bii ca guddi ga dégg na Gaston waat na ko bëgg jox dix millions avance yam yëpp mu lànk yow nga la nga bëre doo doo xaalis jàmbur tëgg ko fen man boobu dama dama xam dama dëgg. ah man ma dama neexal kenn. parce que suñu ci neexal kenn parce que kenn jox ma ci ma lekk kenn ma ci naan. Gaston tooy naa ko doom tooy yow doom mais gis naa koo gis mais damay tax même bu doon jamee du ma neex. bu doon pas ma neex. jël avance su jàmbur toog ba fenn dama lay doon sa xaalis ba bee la tuma la depuis trois mois ma mënoo ko jëloo xaalisam. man bu doon mën ma dee parce que man man du ma man woo man man mënuma yooyu man góor ma yaa ilaaha illallaah. Bombardier Balla Gaye combat boobu noo ko gisee parce que Bombardier moom li ko dese ci làmb bareetul ñu gis ne ñoom ñaar bëree woon nañ mais combat bi yow nan ko gisee combat bi. ñoom ñëpp nag dindi samay xarit. combat bu neex la mais ma ah, mais ama ci mais Balla Gaye am na parce que Bombardier am na dooleem daanoon daanoon na ko te xam naa ne li ma dernier combat am. day bëgg a bay waale victoire de bala ngay bu foogee ne barke sëñ ba ma ba mboojee gën a da dansé foofu Gris Bordeaux ci moom. Bombardier moo gën a danger foofu. Gris Bordeaux ci Balla Gaye waaw. Uh-huh. xam na ko sax moom. Euh, Tapha ak Boy Niang combat bu noo gisee. Tapha laa moom laa faral moom laa bëgg mu daal. Uh-huh. te yàlla na ko daan waaw. Uh-huh. mais gis nga combat bu dina yomb. Tapha bu dee amee fayda dëggantaan day yomb moo gëpp doole. waaw mën naa yomb. booy ñaar ñoom ñaar ko dàq bëre. Tapha Tine ko dàq bëre. Ah. waaw moom mën fuuf. Mm-hmm. waaw beneen bi mooy 31 octobre Alioune daa war a dem ñu gis ni ke Kanté ak ñeneen ak ñeneen gars yi sax ñu ngi am ku ñuy wax ci suuf euh, nan nga gisee affaire boobu. nañ ko jox Babacar Diouf. yow tamit Babacar Diouf nga d'accord. man Babacar Diouf sama xarit la. waaw mais Babacar Diouf mën dama ko xam. dama xam Babacar Diouf xam naa Babacar Diouf c'est très bien. Hmm. gars yi xamuñu ko mais mën na yow CNC. Babacar chaque dimanche mu ngi ci lam di ci kenn du ko gis. Hmm. man am na problème ak ñam euh, yi téye sama xaalis bi ma ko wéyee surtout. Babacar kon ne douane la bi ma ko wooyee dama dama si surtout ne ma lan la ma mën na ko man xeexu ma def ma dara ki la ànd ak man xeex nagaloo gars yi tey sama xaalis mais dafa woote CNC na leen wuli ko xaalisam deful dara mën na yor CNC man Babacar Diouf laa wooteel. mën na ko waaw la woon ci CNG. moom moo yoroon président règlement discipline mooy daqe. di aj mbëri mooy aje mooy daqe. ok te colonel douane la. Mhm. am personnalité. Mhm. chaque dimage mu si ci làmb ji mais du sax toog loos mu ngi ci toog suuf si. ci sées lay toog. bilaahi mun na ko yor. Tyson ko mën koo yor am na personnalité bi. te Tyson aussi mën na ko yor. mais Babacar Diouf man laay wooteel. Mhm. waaw. Euh, l'émission tire sa fin. di gërëm ñëpp Abdou Sène maa lay gërën mhm. sa caay rafet na. per Bass. sa wax sa ma maa ngi koy jéglu ah. Kàggu Kàggu Fatima fii neex na ci yow. wasaare ndey maram di gërëm aussi comme ni ma waxee Ibrahima Ndiaye oto Badou Diouf Ada Dieng ak euh, Jamil Sam Aziz Ndiaye euh, Lamine Samba sama xarit di gërëm waa YouTube bi parce que waa YouTube bi dañu di wax gërëmaa ah. ñëpp commentaire yëpp waaye waa YouTube bi yëpp ñu ngi di sant di gërëm uh-huh. di gërëm Tidiane Dabo sama xarit la Tidiane Dabo waaw maa ngi koy gërëm bu baax. Mhm. ko bëggee waat bu baax a baax moom mi nga xam te ne moom mooy wulli ndax euh, nee naa leen man du ma ko tàggu dama koy woo ne ko damay ñëw rek mu ne ma ñëwal ndax suma góor la sama xarit la day jàpp ci combat bu baax a baax bëgg ma nag bëgg sama avancement. waaw waaw kan ma la solo noonu. gi ma solo laay bu def mooma solal mhm. bu def sama xarit maa ngi bu baax a baax laay bu def. Mhm. muy jaay euh, sandaga lii war mi lay jaayee. maa ngi koy san lépp lépp. moo koy def laay bi def naa ba moom. diine foton ot bi damay solal mu ngi nekk si ka plateau diine façon di gërëm Majoob Faal mooy kala ma yoon teen eh, eh, yaa ak dàll yaa kii bu baax bu baax dinaa la uh-huh. yaa nga soxna waaw am na soxna ki xam laajal ma jóob la maa ngi koy bu baax a baax. ma jóob faal xam na ko. borom borom oor yi ci man. Ah, waaw borom oor yi borom daal borom sax ñooy ànd dem. fii la jaar Kër Masar. Mhm. original lay jaay. Mhm. xam naa ci dara. ma jóob xam na ko dinaa fa yóbbu. wasaare sama wasaare la. Mhm. dinañ fa ànd parce que teraanga àddina yëpp teraanga la. ma jóob faal ak waa kese Abdou Karim Faal feneen ñëpp dina baax. Mhm. ok jiko bi nga waat nag bu baax a baax euh, wuli dafa am sama benn doom boo xamante ne day def anniversaire muy Oumou Dia mu nekk xale boo xamante ni sama doom la sama sët di ko ñaanal naan ko Oumou joyeux anniversaire happy birthday to you dundal maa fi chéri baax di la ñaanal yàlla nga dem ba yore ndax xam naa nee naa la yow mami yaay du sa yaay yow man maay sa yaay ku bëgg asu sëtu asu sumaare sa su mère bii asu faal ñoom ñëpp di ko ñaanal daal moom sama doom ji kooku yorom ndaw mooy papaam mami mooy mooy yaayam nekk xale bu bëgg nit xale xale la mais dafa macha allah daal wuli sama doom jooju Oumou Dia mooy booyu sob yooyu rek. waaw Oumou Dia maa ngi lay souhaiter si sa anniversaire di ñaan sa anniversaire bi yéen a ko yëg fekke na nga gudd fan yàlla na nga mag am jëkkër bu baax a baax a baax a baax mais yàlla buy sob yow da nga xaw a sob mais moom aussi na teey parce que Oumou Dia vraiment ku baax la waaw Fatma naa aussi ku baax la sama doom mais sa rak bi aussi champion la ku yaru Alioune Seye di gërëm aussi yow sa mag mooy sama xarit Ama Dia Awa Dia di tàggoo tàggoo bu dul tàqaliko kon ni ma koy waxee rek wuli la ah. yéen internet yéen yéen ma ko laajoon bien vrai que ni nag dafa xawoon a xat mais lépp rek daf ñu ko nangul ndax bu ñu waxee mu ne yow suma nga la wasaare suma télé la ñuy souhaité waale waat nag bu ko souhaité waat muy suñu doom Henriette nan koy dundal dundal dundal ndax sa am na njariñ kooku mooy doomu Sali ak euh, wuli mi nga xamante ni Sénégal ñëpp wax dëgg yàlla neexu ba dama lay tooñ nag mais xew mais di nuyu sama gars yi ñoom nga xamante ne sànq yëngal nañ ma pocc pocc yu neex internet yi yéen a moom loolu waa ah. waa YouTube bi. Ah. sànq maa ngi naan chaque jour YouTube bi man bëgg naa YouTube bi. Hmm. mais xam nga léegi site yi dafa bëri. Hmm. site yi dafa bëri Sénégal am nañu deux cent mën a wax fépp. man léegi loolu tax ma ne doot ma wax fépp quoi man léegi wasaare mooy sama. wasaare filaay. wasaare sama kàddu fi ngay waxee daal fi lay waxati maa ko wax léegi. Hmm. wasaare mooy sama wasaare fi lay waxee wasaare. mais ak TFM wasaare TFM rek. Ah.